bàyyiwul xel ñi nga xamante ñooy sénégalais mais xëy na tey nag Sénégal fii euh, euh, euh, wut dem liggéey wuti xaalis ñëw noppalu lu ñuy gën a bëgg di dem di seetaani kii championnat parce que sampena daa gudd waaye bu fekkee làmb la temps temps kii la weer la par weer. dem di seetaani làmb waaye. football bi dañ ko war a gën a joxaat cër ndax nag ndax nag ndax nag du euh, ñi ñi nga xamante ni ñooy sénégalais dugal nañ am ay mbir yu bari yu yuñ fi dugal ci wàllu football bu fekkee xaalis dugg na fi waaye bu fekkee tamit ay trophée ñëw na waaye bu fekkee ay ay ay la tamit ñëw na fi donc nañ gën a joxaat cër fu euh, championnat Sénégal bi ndax nag euh, championnat locaux yi ñi nga xamante ñoo jël saan bi mhm. kenn génnu ci nekk professionnel mhm. waaye ñu ngi leen di ñaanal ñu nekk ay professionnel ñoom ñëpp di fayee ko ay milliards dimbali seen i waajur ak seen waa ko waaye fi mu toll nii moom talent moom am nañ ko waaye fi toll nii moom ndimbal ndimbal yoon na tàmbali ndax nag 10 kër gu mu ndimbal la tàmbali na 10 millions kër ga mu dugg ndimbal la ma ngay tàmbali yàlla na leen jik coupe bi yàlla na nekkaat ay coupe yi coupe yàlla na nu demaat ci yeneen i jamono xale yi ñii di football nii ba jël trophée bi yàlla na ñëpp nekk ay professionnel ñeneen ñëwaat jëlaat ko ci kàttanu yàlla ak mbaaxam dañuy gën a xuus nga xam ne rek moom moo di Gaston Mbaye ngi ci taxawaayu doomam ji moom nag ma ngay xam leen ne rek seen première rencontre danañ ko fixé fukki fan ak ñaar ci weeru février maanaam dimanche gi nga xam ne rek moom la dëgmal muy combat boo xam ne nag ñu bëri dañ ko doon xaar gannaaw ba diggante Modou ak Ama Baldé amatul maanaam combat ba ci jëm boppam moo amatul mhm. Modou Lo dana daal jël Boy Niang ko fasal boobu lay xibaar di ki nga xam ne rek moom moo di doom ci Gaston Mbengue euh, ci ci football ci ci làmb donc ñu ngi ñu ñu ñu ngi ci sport ba tey bii national la waaye bii international la mhm. tey bii nga xamante ni mooy mooy mooy mooy bëre mooy làmb mooy sunu sunu sport national la maanaam boo nee ceebu jën national de lamb nationale lamb nationale. dëgg ba pare laal ciy toftal arène nationale. Mhm. tey bu Modou Lo ak ak ak Boy Niang bu nu bëree war na noo bëree xam nga lu tax war na noo bëree. parce que lamb da leen a boole. Mhm. te Boy euh, roi kenn du ko téye ba deew ak moom wala nga téye bàyyi ko ak moom non. sinon da ngay jox keneen parce que ñeneen yoroon nañ fi roi Yékini yor na fi roi temps bu bari. Mhm. kenn mënu koo jël Balla Gaye ñëw jël ko ci moom Balla Gaye keneen ak keneen jël ko ci moom waaye keneen ak keneen jël ko ci moom mais. li ci ëpp solo mooy euh, euh, nan ko bëree ci fair play mm-hmm. ku mën sa morom gañe ku ku ëpp ku dàq bëre gañe waaye mm-hmm. ku ëpp doole it gañe waaye nag mbër dañ lay wax mbër doole mm-hmm. waaye mbër fit di nga am xel daat ni xel mii de su ma ko amoon xel mii de mën naa koo def technique bii de mën naa koo def pour daan waaye technique boobu boo koy def sa moroomu góor da nga koy da doole. am na technique mm-hmm. mm-hmm. insister rek mooy li nga xam ne moo di sécurité bi nga xam ne des dañuy dafay nekk en faillite parce que aussi imagine toi que buñ nee làmb am na arène nationale à kër yi ko wër wala 15h da ngay gis ñëpp daal di tàcc te aussi d'habitude dañ koy joxoñ baaraamu dafay nekk lu métti métti mhm. surtout nag li nga ko renforcer lu nekk doyul parce que habitants yi nga xam ne rek ñoom ñoo nekkee aux alentours de du stade ñoom am lu rek moom moo fi nekk nga xam ne moom la ñuy gis xam ne moom la ñuy gisee gendarme yi gémi yi ci biir kaw tali bi mhm. ñu gisee la noonu ci stade bi pour rek sécurité bi gën gën kii jàmm mën am ci stade bi aussi gis nga gis nga man sport bi foofu noonu mm. moo tax tubaab bi dañoo raw ci bëri ci lu bëri tubaab bi dañuy ñuy jël maanaam euh, euh, sécurité boo xamante ni ñoom seen yoon nekkul ci sport bi. Mm-hmm. xam nga seen yoon ci lu mu ne. maanaam ci sécurité bi ci kaw ci xool di xool stade bi problème bu amee ñu lijjanti ko ñu bari nag mais tey euh, li ngay wax naan bu bu procès amee wala dara bu problème amee ci réew mi ni ñuy sécuriser réew mi. Mm-hmm. gis nga tey lu ci tey lo kam combat bi tey Pikine fépp fépp bu combat bi ñëwee fépp dañ fee waroon a def maanaam sécurité Pikine gépp fépp foo fu fu fu fu stade bi am yoon rek dañ ko war a sécurité ba mu mat fii ba Pikine ba parcelle tamit ñu sécuriser ko parce que tey ñu si bëri ñi nga xamante nii dañuy bëri peut-être Modou Lo ay supporteram violent wunu Boy Niang aussi tamit noonu ndax ñoom Pikine lan dëkk mun yàq yàqee stade bi wala luñ fa def rek ci ñoom lay retour waat parce que ñoom ñoo fa dëkk waaye tey ñi nga xamante ni mooy ñaari lutteurs yi ñoom seen i seen i seen i supporters yaakaar naa ne duñ kii waxuma nag yeneen supporters yi danoo violent mais nag tey day am ñoo xam ne bu du dañuy ñëw ngir supporter seen bër am ay amateur waaye day am ñoo xamante nii dañuy ñëw bëgg cee boole leneen lu ci bokk mooy ñi nga xam ne ñooy raskatu jéem yi ñooñu dañ leen a war a di segg di leen di leen xool ba pare sécurité bi daa war a am ci tali bi ah à 500 mètres wala 1000 mètres nga xamante ne ni tey foofu yëpp dañ koy sécuriser nga xamante xam nga supporters yeeg amateurs yi ku ci nekk dangay pare di ñibbi. Mm-hmm. te day bari te booy ñaar fu mu làngee fu ne. Modou ñëw ni ko maa làng ak yow foofu stade boobu ko fay xaj. voilà léegi nag sécurité bi daa war a doy ba mu ëpp parce que état dafa war a dugal ci sport national bi loxoom bu lu bari. Mm-hmm. ci benn côté muy côté sécurité bi côté sécurité bi bu amee rek li ci des mën nañ koo lijjanti. li ci des voilà leneen li ci des problème yi dinañ ko gérer mais sécurité bi surtout moom moo ëpp solo. Mm-hmm. mais tey booy Niang bu bëreek Modou wàcc na waaye nag. combat bu dëgër këng lay doon combat bu neex ba pare combat boo xamante nii ku ci amul tactique dëgg doo daan te Modou motloo Modou euh, euh, euh, nekk na mbër moo xamante ne nii mhm. xam-xama koy daan ak fit waaye boo Niang nekk na koo xamante ni nee na damaa bëgg a jël roi bi. xam nga loolu day wow. Mhm. moo raw ñaari xeeru roi yu daje. tàcc <laughs> lay def. <laughs> feneen fi ñu jëm ak yéen na ci ne moom moo ji rumeur de ne teg nañ ko ci karaw ne rek moom moo ji Lamine Ndiaye Lamine Ndiaye di moom moo ji nekkoon ci wàllum théâtre joué théâtre nekk acteur boo xam ne nag dafa mënoon li muy def moom nag gannaaw bu ñu fësalee ab xibaar ci TikTok yeeg réseaux sociaux yi nekk dafa génn àdduna daal dinay àddu xamal ni que ni bien vrai que dafa feebar dafa dafa nekk ci ay jafe-jafe waaye nag wax dëgg fa yàlla mi ngi dund te aussi état war na jóg ci li nga xam ne rek moom moo di kii di fësal information bi di rey nit ñi parce que c'est la fois ñu ko koy def bi yoon nag daal dina riposte daal di addu jëmale ci li nga xam ne moom moo di jëmmam ji mu ngi jot ci yàlla ci loxo yàlla la nekk deewam deewam aussi nekkul ci loxo nit mhm. amaana ne ko dëgg fa yàlla bu dee dafa am leneen lu ñu ko naral nañ ko ko wax moom mi ngi dund mhm. génnee na ab vidéo def na audio woote na yëgal fekkee ba rumeur yi commencé ku nekk mi ngi ko doon woo ay mbokkam ay jege ñaalem ñu bëri di essayer di xool te loolu aussi dafay nekk loo xam ne laay da laal sensibilité nit ki nit ak bakkanim fooree yàlla ba muy defar tàgguwu la mu mhm. nga xëy-xëy na yow yaa a rey ci ay yoo xam ne xam nga xam nga yàlla bi muy defar jàmm boobu mhm. nit fekkewu ko yow mi bi ñu lay defar keneen fekkewu ko yàlla dalaa jékki-jékki rek wàccee la gis nga nag bul bëgg xaalis ba bëgg xaalis boo xamante nii xaalis bu bon la mhm. tey dugg naa ci def naa benn affaire dugal naa ko nit ñi vii nañ ko waaye am naa ci xaalis nga nga lekk ko defe ni yaa ngi ci jàmm fekk nekkoo ci jàmm mais nag tey moom lii mu ki ki publier lii peut-être mënoon naa euh, Papa Lamine Ndiaye mi mu bëggoon a rey te deewul mm. lii nii mënoon na ko piblier ñeneen dee ci parce que mën nanoo mën naa gis koo xam mën ku am cardiaque mën na ko yëy rek yem fa mm-hmm. eh, te ko bu ci keneen deewee yow yaa ko rey mais li ci ëpp solo mooy ki koy def nii donc war nañ koo saytu comme que fii moom ku fi ku fi bëgg a jàpp jàpp la kii moom war nañ koo jàpp xam nga lu tax war nañ koo jàpp. Mhm. Euh, ndax moom li muy def nii wóorul. dëgg li muy def nii wóorul parce que magum jëmm moom Lamine Ndiaye ñëpp xam nañ ni artiste bu mag la. Mhm. mën li muy def te ba léegi boo ko woowee mu joué la li muy def mhm. donte sax mag la mais boo ko woowee mu def joué la li muy def. donc am na ñoo xamante ni dañ leen a ay monument la dañ leen a war a jox respect euh, Lamine Ndiaye dañ ko war a jox respe bu mag. parce fii si Sénégal parce que teewoon na Sénégal fu ne defal na Sénégal lu ne faj faj na nu wér. Mhm. ñi ñi nga xamante ni nii euh, euh, danoo feebaroon ci ay seetaan nañ ko peut-être wér. donc yooyu noonu bu nu amee ñun lii moo tax tubaab bi raw nu tubaab bi dañuy jël seen i ñi nga xamante ni ñooy seen i artistes yu mag fonk leen jox leen respect mais ñun Sénégal fii dangay gis ñoo xamante ni euh, danoo xamut ba pare xamadi xamuñu li nga xamante nii mooy di rey nit a mais li ci ëpp solo daal moom seegam mi ngi dund sunu papa yàlla na ko yàlla may fan wu gën a gudd mu gën wér mhm. yàlla yëkkati ko mu gën a wér gën a dëgër fanam gudd yàlla defal ko jàmm waaye nag kii di publier lii bu buñ ko tegoon loxo war nañ koo teg loxo parce que tamit amul respect mhm. te it euh, dama koy bañ a wax waaye dinaa ko wax rek ku réew la <laughs> euh, ku réew la te xamut ku xamadi la ku réew la xam naa nag est-ce que euh, moom est-ce que bu nu publier woon papaam wala yaayam moom mhm. ko neex ni ko dee est ko neex waaye nag bi a ngi ñëw moom li muy gàng nii dina ko dal dina dal keneen ak keneen mhm. moom dëkk bi moom jàppal nii moom àdduna bi moom doo fi nekk rek muy neex mhm. après da ngay dee mais nag na respecté papaam moom wala yaayam mhm. mu bàyyi yaayu jàmbur yi muy rey ak bàyyu jàmbur yi ki koy def nag laay wax ki koy def nag yow moom ku xamadi nga ku xamul sa bopp nga ku xamul amoo valeur ndax ñàkk valeur rek moom mooy rey baayu jàmbur waaw te fii nag ku ci ne bëgg nga di dund ak sa papa mais boo reyee baayu jàmbur te sa baay di dund nag yow amoo respect mu gudd fan papa ñu ngi gudd fan na a yàgg rek kenn du moo di suñuy valeur nationale donc nag loolu ci moom rek loolu rek lañ a jàppee mhm. woon dañ naan cam waaye comme nag moom moo ngi dund te saa su ne solo kon nag suñu papa jooju dañuy ñaan yàlla rek mu daal di ko fi yàggal yàggal ko fi loolu